IFM ak UDIS bi naan cantine. yéen yéenay waa Sylvain yéen ngeen di waajee tournoi bi. ñu koy waaj comme gars yi ñu koy waajee rek ñu ngi kon ñu ngi joué ak fair play rek waaw même question tamit pour yow pour ngeen di waajee. ak dara ci fair play fii ak ci jàmm ak salaam rek. ci jàmm ak salaam incha allah. léegi yéen tournoi bi lan moo leen poussé ba ngeen dugg ci. bon dara tout simplement mécanisme ak passion tamit. loolu rek laa mën a jàpp pour l'instant. ah yow tamit dama leen di seq. non xam nga bii góor ma ne suñu objectif quoi ñu dégg ko fi mu pacifié ñoom ñu pacifié ñoom ñu ko. seen objectif ci tournoi bi lan la. ci tournoi bi ñu dégg ko. dégg ko waaw comme comme d'habitude rek. seen objectif yéen ci tournage comme dégg ko mom neen jël yéen ko mooy seen objectif te yéen ñaar yeen a ci a gis seen objectif lan la. waaw dara dina fe inshallah ba jour J ci terrain inshallah na allah. lolé kon loolu la ngeen ngeen waaw lu ngeen joxante te ñun. waaw ñun ñu ñoo ñu ko ci terrain ñu ñu ko ñu ñu ñi bi yokk seen yeneen wax. kon gars maa leen ci remercier. yi Al qaida wa Al qaida wa Al qaida ñu wara tassé mo xol ak tase ak jéegi jàmm. bëggoon nañ aussi comme question yi ñu laaj ñu fi jot a jaar lan moo la ñu aussi tournoi bi yéen waa Léegi Jàmm. bon comme yii moom waaw dafa dafa nekk suñu passion quoi. waaw malgré tout ku nekk am na si lu mel nii mais bon chaque dimanche dañuy football ñëpp lépp si kàpp la quoi. maanaam te te te man tellement te kii quoi ci li ñu war a njëriñu quoi naa tu vois moo tax mais du dara quoi lépp fair play rek man loolu laa ñaan quoi naa fair play yow yaay représentant wu. waa Alkaida waaw daw pourquoi Alkaida. waaw Alkaida loolu tur bu yàgg la mën naa ne loolu mag sax man. Mm. damay ñëw si Sicap yaa ko fekk. mais tamit soo gisee li tax ñu organiser tournoi bi pour jàpp boolewaat doomu Sicap yi quoi ñu xam ne ñoo bokk nañ ñu def ko baax. wala ñu boole mais lu tax la quoi sport noonu la ñu def ko si benn benn moo tax ñu def ko pour ëllëg ku si doon romb sa morom te xamoo ko sax di nga ko si xam ba ëllëg. mooy gàtt moo jox ko cër quoi xam nga benn association nag moo ko tëgg ñu koy wax xale Kalba Kalba xam nga. tournoi bi moom pour man waa a dañ koy jël ndaxte gars yi dañoo gëm seen bopp mm. te ñoom jàpp nañ ne fu taxaw seen kanam ci terrain rek ñoom loolu moom tax bañ na ko ñoom ay Baay Faal la ñu woowee seen bopp quoi jom ji daal moom bëri na waa jàmm naa leen di seen mais jom bi aussi bu bëree bu ñu fekk si ñoo xamante ni dañoo xam loolu moo tax rek affaire yi di ñëw. nga xamante ne moom affaire bi jaay na dara rek. waaw dégg nga ko daan wax. non ça va loolu dafa am lu nekk yoo xam ne dañuy sax ndax xam nga ni benn benn final. Ah. final boo xam ne après benn émission la dem. Ah. troisième waaw troisième émission fukki ko. ba tey nii te xam naa si lay leeral. ñu occasion pour ngeen leeral. waaw loolu de man dama kontaan si lii. waaw ah. <laughs> waaw kon gars yi wax ngeen ñu ngi am waa PAM bi. waaw plan bi ma xool ñan lañu war a tase waaw plan ñoo ci tase aw représentant woo plan bi moo nekk nii comme yow yaay plan bi plan moom toog lañ ci gën a xam loolu lañ njëkk a dalal saa waay mu toog léegi yow lan moo waral plan bi Pedro que ia o cara. Hum. Assim, que é barba lá. Eu amo dele essa aí, uma. Aí pega a barba e toca. Mas se não me tem, eu acho que a parte é pura. Se não é o itu. eu digo. Obrigado, itu? Deus. Mais dingin itu. talaga kung sa wali din lang sa isang job bu ñu adhéré delloo ko ci booy booy bi. waaw te yaakaar naa ne moom te terrain bi moom xam na terrain suñu terrain la. terrain am ci suñu koñ la jaaxaaroo léegi ngeen ji dara loolu terrain bi. kon yaakaar naa kooku war nañu def sama terrain bi ñu. waaye loolu moom lu ñu wax la ñu comme nee na yow yoroon nga ko doo ko dooraat léegi nan ngeen di waajee. tey ak ñu doon bëri askan bi ñu kon ñu si gàllankoor bi ñu ko defee tournoi bi day ñëw rek pour mën a yor pour mën a waat suñu bopp rek continué waat te ñun ay zone ñu ñu doon ñu doon ko suñu bopp ñu ngi football voilà tournoi bi dañ ko dañ ñëw rek dañ ñëw rek continué. dañ ñëw rek continué incha allah. waaw non li mu wax rek nee naa jamono bi ñu rek di wax voilà moo tax wax loolu xam nga bu baax waaw baax na waaw wax na wax baax bu baax baax. waaw kon dañ leen di bàyyi ñun tamit dinañ fi déglu ñu wax. waaw sant yàlla kàddu mooy comme ni ma leen ko may fi sax ci sama bari nii parce que lu yaa ngi soxla seen bopp boo ñu bàyyi tànn rek affaire yi jóg daal. waaw gars yi kon dama ci yéen. ba nekkee parce que yow yaay représentant wu association. moo nekk waa Gassam. waaw loolu ñu waa Gassam. vraiment yéen naka yow yaay représentant ci bi किया आदमी ने मैं वही पूछा during the sample patrolling seven vintage and the Indian percentage guy won a money for now which is full and like that. मैं एग्जाम पे भी हूँ इसके साथ यहाँ पे हूँ मेरे साथ यहाँ पे हूँ साथ मैं इसके गुरु में हूँ एग्जाम पे तो खास non non ñun yor nañ ay jours yu foofu waaw ñun ñaanu ñu woon externe dañ doon ñaan tase ci biir ñun gën a tëggal sax pour wan leen ñun ñu parce que suñu objectif mooy jël final. kon ñu leen di waaj yéen pourtant gars yi. waaw non comme ni ñu ko daan waajalee rek. Ah. gars yi fee moom amuñu toog ñoom xamuñu toog ay jours lañ dañuy compétir bien vrai que dañuy jàng mais seen passion yu football la tamit voilà. ok ñu leen di. ok waaw. waaw dañuy continuer ak ki nga xamante ni moo fi teewal waa association xale yi Karba Karba d'abord man laaj bi ma lay njëkk a laaj mooy lan mooy ñoom Karba Karba bi laa bëgg li ñu parce que bu ñu xale mooy Karba mooy Ousseynou voilà suñu daan toog fi ñu yàlla dafa nekk royukaay dafa nekk royukaay xam nga boo xalaatee comme fii royukaay la te Sénégal moom dafa baax dafa baaxoon ni tant que nit nekk wala jëndul ak ñoom benn nit ñu gëm ne lan nga commencé ci ay affaire yooyu noonu waaw ñu toog xalaatoon nañu xale yu xale mu si maa ngi dégg ngeen naan. WhatsApp ak yooyu jafe yi pour ñu. ok loolu bëgg jël am xale kanam que man espoir laay dund comprendre naa la ma def comprendre nga mais teewul tam yooyu dund espoir su ma liggéeyee ba wàcc moo nekk maa jot ma waaw mu nekk jigéen bu jàmbaare ñoo toog pourquoi apa kemudian naan am yeneen programme yi teg yu bëri comme naan su nekk benn programme ñun ñi dundee sport pourquoi pas ñu mën a créé benn rapatage comme naan benn pour wax rapatage bu ci dem mu nekk wër bi comme gars yi tàmm xamuñ ko comme naan tàmm bi la def comme naan mu nekk mu nekk première fois boo xamante တော့မှာကျွန်တော်ဒီကြေရတာဒီလိုပို့ရဟုတ်လားဒီဟန်ဒူကိုခံရတယ်နာမည်ကိုရင်းရင်းရင်းနဲ့ဟုတ်လားစေကူရင်းရလာဆိုင်ဘာတန်ကူကဲခုလင်းနေလို့ဂျာလာစတီကကိုကဲဘုံဂျာလာစတီကအားမစလာစတီက

parce que gis nañ leen cachet yi ñu pourquoi pas dans le stade maam mën nañ parce que ñee ay nit lañ te ñun ñoom ñu fexee gis defar seen tool ñu war a ñëw jub ci am ñu ku sa morom ko ñu ñu ko suñu ñu ko am ñu le groupe bi nekkul nit ñi rek ñu am ay champion si bopp su mel ni Mbaalo Mbaalo artiste wala Diop waxtaan nañu su mel ni Elage Fatou waxtaan nañu ñu si mel ni Nana Lim si groupe la bokk su mel ni ay ministres da koy def yëpp gars yi champion bëri nañu groupe daa ah. yoo xamante ni ñu yokk doole waaw ñu ñaar ñu def ay grand frère si nekk tamit yoo xamante ni ñu yokk doole suñu ginnaaw ñu ñaar waaw lu si mel ni grand Gamou tamit waaw moom mu ngi yokk doole mu nekk grand bu oyof moom waaw lu si mel ni xaw ma ñu ngi dëkk Thiès waaw moom it ñu boo xarit daal waaw pour xam nga suñu des temps léegi tournoi yi kañ lay commencé tournoi bi ñu commencé loo xam ne suñu bi loo xam ne commencé ñaata ma si moom waaw bu ñu am ñaari mas samedi ñaari mas waaw ñaari mas dimanche yi am benn mas léegi beneen journée bi ñu ngi préparé final bi ñu ngi lay remercier ok merci waaw maanaam comme ni ma ko waxee jaay nee nañ tournoi yi lépp a si am lépp lépp si am ku si nekk heure la jox da ngay respecté balaa heure boobu di jot nga ñëw comprendre nga te te tamit dañuy ñaan samedi ñii njëkk a fubal ñoom bu ñu fubalee ba pare dimanche tamit même bu ñu fubalul dañuy ñëw dooleel affaire bi quoi pour affaire bi gën a am jëm ñu wax ne tamit comme ay arbitre yoo xam ne nii tamit lu luñ tiiree rek loolu mooy nekk te tamit capitaine équipe bi mooy moo yor. wàllu cadre bi yëpp comme bu dara amee kenn warul comme ni nga ni ka équipe yu mag yi di defee capitaine bi rek moo am droit pour wax ak arbitre bi comprendre am na lépp nag waaw pour ñu koy wax gars yi xaalis tamit taxul ñu def ko yi loolu moo tax mais lépp luñ ciy wax rek tamit comme ni ma ko waxee woon kii après capitaine bi ak ki toog si moom tamit am na benn groupe bu gars yi di créé moom moom da si bokk lu ko lu ko métti si tournoi yi am na droit kaas ko foofu noonu quoi. xam-xam loolu loolu daal moom lañ ci doon yokkaat ci wàllu. waaw tey yaay Ousseynou Kane wala suñu yaay jël initiative bu rafet bi def jumaa bi ci péro bu ñu Karbon Karbon léegi yow loolu lan lay def si yow. waaw keroog bi nag amoon nañu si wax sax amoon wax nañu euh, ko xale Karbon Karbon ñoom an Karbala an Karbala ak WhatsApp yàlla def si jàmm di indi ci beneen groupe staff bu dee ko 100 pour 100 Karbala boobu nag am na lu ne te ci dégg si waaw ñun bii dañu dañ koy créé si naan wala sorti bi nii pour mu rafetal bi nii waaw Sénégal ak Kébémer si ci làmb suñ ko mënee tëgg sax combat bu naan la ñu arrêté bu gëstu bi incha allah avec la wala wala incha allah. waaw léegi yow lan mooy seen message boo xam ne moom ngay lancer jeunes yi nga xam ne. waaw jeunes yi mooy yaa salaam rek ci jàmm bu baax ci jàmm la ñu woon ndax loolu moo tax ñu créé bu ñu xam nga ku si nekk boo ñëwee nag mel ni sa yëf ku si gaañ tamit xam nga ñu xam ne moom ay ku ñu gaañ tamit nga sant ko yàlla xam ne am na yeneen éléments yu bees ci kàddu gi ñu premier waaw kii nga xamante ni mooy Idy Dieye ko présenté mooy capitaine Samson Idy Dieye les jours nawetaan yi xam nañu gis des tournois ñu wóor nañu xam lan mooy sa présence. waaw sama pré sama présence la rek mooy maa bokk ci Karba Karba yu ko fekkee ni. da nga si am équipe booy football wala. man waaw maa ngi équipe mooy. ban équipe ngeen di. Al Qaeda Al Qaeda waaw ñu ngi lay remercier. parce que gars yi moo nekkoon li nga xamante ni mooy tirage souvent Karba Karba bi nga xamante ni moo war a am mooy association xale yi Karba Karba tournoi bi ñu ci lenn lu dul boole xale ñi nga xamante ni mooy waa Sika Mbaaw tournoi bi nag bëri nañu si bopp cette équipe la def nañ tirage bi. dina am benn équipe boo xamante ni moo exempté su ma juumul tournoi bi mu war a commencé le 11 kon gars dañ leen jox rendez-vous le 11